salaamaaleykum mbokku déglukatu réew Rewmi FM dal leen ak jàmm ci seen euh, émission sans filtre euh, mercredi bu jot lay am fii ci Rewmi FM 15h jàpp 16h euh, tey ñu dalal fii étudiant EBAD yi fas yéene waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy rencontré ngir ñu am liggéey balaa ñuy introduire Mamadou Diassi damay bàyyi Modou Fall mu nuyoog mbokk déglukat yi. waaw salaamaaleykum yéen mbokki déglukat yi nga xam ni yéen ñuy déglu fu waay mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew euh, seen émission bu mag bi dooratina muy sans filtre di am àllarba bu nekk bu ñetti waxtu ci euh, bëccëg jotee jàpp ñeenti waxtu maanaam 15 heures 16 heures tey nag ñu amati geneen gan goo xam ni euh, moo toog waaye bala ñuy dëkk ci gan gi ci kanam tuuti daañu dikk ci actualité bi képp koo xam ne bëgg nga ànd ñun tey ci émission bi mun nga woote ci 88 mbaa nga def 88 628 86 86 plus 1 yow mi nekk bitim réew di dégg émission bi bëgg ànd ak ñun mën nga woote ci 33 841 21 40 boo ko defee daa ànd ak ñun ci émission bi Sylvie dama lay delloo kàddu gi doo ko ñëw ci actualité bi. waaw ñëwal ci actualité bi li ci li gën a li ci gën fees Sylvie tey lenn képp la muy mbiru Wally Seck yaakaar naa mooy li gën a fees ci actualité bi ci biir euh, Sénégal wala ñu ne fépp ci àdduna bi. fu sénégalais nekk rek tey mu ngi waxtaane mbiru góor jigéen ak Wally Seck euh, Sylvie il faut yi am courage wax dëgg donte dañ leen di saaga info faut it ñu wax dëgg donte dañ leen di rey euh, mbaa xam nga ni baatu góor jigéen lu diis la ci nga jiiñ ko nit euh, nga jiiñ nit góor jigéen ah indiwoo benn confirmation moo gën a diisati góor jigéen mooy lan mooy góor guy sëy ak moroomu góoram maanaam puus puub nu ma koy faral di waxee saa su ne mm-hmm. loolu mooy góor jigéen kenn warul am fitu nag di ko jiñ nit te tegoo ci sa bët Wally sekk borom njaboot la xale la bu ndaw a ndaw di borom njaboot. a ah, def benn uh, soirée ñu gis ci benn image image bi ñiy monté image miir lañ ko tuddee mu doon image bu fees ci àdduna bi wala bu fees ci senegal RTS ak yeneen yeneen télé yu bëree bëree bëri day jaar ci seen ay seen bon su loolu amee ñu ne Wally góor jigéen la góor jigéen la tamit borom njaboot benn doon nit koo xam ne tamit xale la ñaar di jëm kem kattanam. ci réew mi ci ñi néew doole di jëm kem kattanam ci réew mi ci ñi tawat di jëm kem kattanam ci réew mi ci jullit ñi ak ñi dul jullit ah bu defee nañ ne moo def waaye dëkkee di ko tooñ nag c'est pas important. Mm. li ma ci li ma ci gën a soxal mooy ñi ko koy jiiñ mooy ñan ñi naan ay activiste nañ ñenn ñi doon ay màggati paar ñoo xam ni seen carrière jeex na ci àll bi ñu jël seen àdduna bépp sam ko ci xale yi lu xale def ñu wut ca buzz lu xale def ñu wut ca lu ñu mos. dugali pelant jaar fii Sylvie lan mooy activiste nit ko bëgg a tedd te doo sonn bëgg a dund ci àdduna bi te doo sonn nga tuddee sa bopp activiste fan ngay liggéeyee fuy sa place fuy sa biro nga doon benn rappeur woye wooye wooy ba woy xeewi amoo album waali juddu dem carrière tuuti àdduna àdduna wër ko boo doonee ko gàtt xel da ngay jàpp ne li nga ñàkk waalee la ko xañ ñu continuer yeneen pas yoo xam ne daanaka jaamu jaamuñ yàlla amuñu métier dëkkee bi ko wax lu bon non attends may ma ma cest à li ma bëgg a wax ci ci lu leer mooy kane li ma damay daane li ma bëgg a wax ci lu leer mooy kane nit ñi nañu bàyyi sot nit pour rey ko nañu bàyyi néewal doole nit warul te gënul ma fàttali nag mm-hmm. man xaw ma waali mm-hmm. nii ay mbokkam nii ay xaritam benn feebul kese laa am wala benn feebar mooy képp ku ñu nar a toroxal ci réew mii dama gëstu ba xam ne dañ laa tooñ mm-hmm. dinaa la défendre lu ma ci fekk ma jël activiste tappalekat la amuñu benn raison lu dul bi ñuy xeex jikko yi lan moo tax waali ñëwul mais kuy xeex jikko mooy lan kenn ku ne ba nga juddoo sa ndey ak sa baay def ci yow jikko ju ñu jàpp ne moo gën nga doon magum jëm mu amoo jikko ba sa jikko bon la fekk si ci ci sa am nañ mbégte kontaan loolu dalal euh, plateau sans filtre yaay coordonnateur étudiant Ebadi ñu bàyyi la nga ñëw teg mbokk auditeurs yi. Euh, merci beaucoup Sylvie ci invitation bi merci Modou Fall euh, li ngeen tijjee am na solo parce que mbirum góor jigéen da loo xam ne commencé na am doole ci réew mi. te mhm. liñ koy waxtaanee bëri na. Mhm. image yu wàll yi def am na ndax amul na dañoo yeewu gis ko ci internet bi. Mhm. porté na plainte nañ bàyyi yoon def liggéeyam bu defee bu fekkee ne moo def. incha allah ñu sanctionné ko bu fekkee ne deful aussi ñu rétablir ay Euh, merci aussi ci invitation bi ma leen di fàttali na du ma des étudiants de l'EBAT euh, mhm. mais plutôt représentant des étudiants d'accord ma am mbégte loolu nag euh, mhm. teew fii ci seen invitation pour waxtaanee problème mu EBAT ak problème comité universitaire de manière générale mhm. merci merci Mamadou Diassi comme li ñuy tàmbalee rek mooy sanction yi nga xam ne Euh, conseil de discipline bu UCAD jël na ko daan lu toll ci quatre-vingt-huit étudiants. Mhm. ñenn ñi jël nañu cinq ans ñenn ñi jël nañu deux ans am na ci ko xam ne dañ ko exclu de façon définitive lu ciy sa xalaat. waaw euh, ñoo bàyyi euh, avant tout d'abord sanction bi métti na métti na trop ci suñu camarades étudiants yooyu mais nag université aussi dafa nekk benn temple de savoir boo xam ne mënuñoo bàyyi lu neex waay def. Mhm. mais nag bu ñu yegsee fii dañoo wa a taxaw def seetlu. ba mhm. xam lan moo waral problème bi yan solution lañ ci mën a apporter comme ça bu ko dinañ mun a xool fuñ jëm euh, pour suñu ëllëg parce que nag université euh, problème amical yi moo fay problème majeur mhm. euh, problème bi fee juddoo temps yi mu ngi juddoo ci ay affaire résultat élection mhm. am élection amicale yi am na camp bu ñu déclaré vainqueur beneen camp bi riposté ne résultat jaaru ci yoon gars yi dugg ci réseau yi saccagé yàq yenn yi ak professeur bi nga xam ne arraché nañ micro mhm. waa CS décrété ay ay mouvement de grève euh, de manière renouvelée mhm. teg pression bi rectorat rectorat a convoqué le conseil de discipline ñu traduit suñu camarade plus deux cent cinquante étudiants mhm. euh, sanctionné ci sept pour une durée de cinq ans sanctionné ci 37 pour in durée de deux ans benn étudiant ñu dàq ko de manière définitive euh, neuf yi des ñu réprimander leen 21 autres yi ñu bénéficier d'une relaxe Euh, en attendant euh, ñuy xool seen dossier. ñi ñi ci des nag ñu suspendre leen en attendant seen audition devant le conseil euh, de discipline. Mm-hmm. léegi nag loolu dañ ciy woo recteur parce que avant ngay sanctionner avant waroon nga mën a woote ay waxtaan avertir leen bu fekkee les mêmes auteurs on recommence encore les mêmes actes boobu bu ko defee nag ñu mun leen dàq mais ni leen dàkkee nag métti na métti waay boo xam ne ah ñu leen mm-hmm. ci dara mais lii aussi day permettre ñeneen ñu bañ a dugg ci ay scène de violence quel soit les résultats nañ toog waxtaan ak kilifa ji ñu xool nu mu gën a rafetee ñu defee parce que li ñuy yàq aussi suñu alal la mm-hmm. buñ ko yàqee bu ëllëgee ñu ñoo koy wuti war mbala ñu tax ci mbedd mi di sandi xeer naan état bi liggéey alors que état bi ngi liggéey mm-hmm. jàppoon ni décision bi conseil de discipline bi jël euh, amul euh, quelque chose de politique derrière non euh, mën nag mënuma koo qualifier parce que a mm-hmm. waaw loolu nag maa ngi koy dégg mais comme awma ci finde bu wóor euh, pour ma sori ci nag du yomb mm-hmm. mais ñu traduire devant le conseil de discipline foog naa dañ leen euh, traduire à partir des preuves ñi nga mm-hmm. xam ne conseil bi loolu la am ci ñoom auditionné leen peut-être ñoom li ñu andi pour euh, prouver seen innocence doyut mm-hmm. ñu sanctionné leen d'accord Amadou Fall mu bàyyi la nga sànni dara peut-être ci sanction xale yi waaw waaw ci gàttal rek comme comme li mu wax lu am solo la muy xale yi ñu sanctionné ñu ci baree baree bari Euh, seen avenir euh, mu ngi woon ci seen jàng. Mm-hmm. Euh, xale yi ñu ci bari seen parents yi dañu sonnoon ci ñoom nap napi ci ñoom ba ñu ñëw. université pour war a àggale seen njàng ñu amoon ci ñoom yaakaar. Mm-hmm. réew mi tim am ci ñoom yaakaar nag. bon su loolu amee dañuy dikk tuuti ci cause bi cause bi mooy ndaje bu amoon ñu nangu micro sànni fa xeer tojoon toj fa ay chaise tojante bopp. ah mën na am nag benn équipe bu ndaw moo programmé woon li nga xam ni mooy histoire bi ci ginnaaw équipe boobu programme histoire bi am na équipe bu ko bu ko ful bu gën a mag li ma bëgg a wax euh, woote woon ndaje bi pour am solution pour waxtaane université pour waxtaane avenir xale yi yeneen xale occasionné wu ci yàq li nga xamante ni si mooy ndaje bi nangu micro toj mm-hmm. d'accord naa ñi fees ci vidéo yi nañu leen sanctionné mm-hmm. mooy ku ci mel ni ki nga xam ni moo nangu micro bi kooku dafa fës dafa wane boppam mm-hmm. d'accord naa ñi nga xam ne dañu gis ñu toj siège nañ leen sanctionné mm-hmm. d'accord naa ñu yëkkati xeer sànni ñu gis leen nañ leen sanctionné mais nag am na ci yeneen yoo xam ni Sylvie seen yu nekkul ci soir bi te dañ leen sanctionné mm-hmm. man je pas d'accord ci mooy li ma wax léegi ci ñu dëkki tooñ nit non non ki def dañ ko wan ne dangaa def dangaa def bu laajee sanction ñu sanctionné ko bu laajee amaan ñu amaan ko bu laajee yóbbu ci yoon ñu yóbbu ko ci yoon mais nag boo boo defee ndàqum ginaar waxaale sa soxla muy tëj nga euh, sanctionné nga ki def wañu ko daal ne ah activiste bi tim sonal na ma mhm. naa ko sanctionné waale ki ànd ak Sonko sonal na ma opposant la naa ko sanctionné waale bu boobaa nag ah yaa ngi defaale ndàqum ginaar wax sa soxla voilà euh, sanctionné rek ki def mhm. te fés bu bokkee APR mhm. sanctionné ko bu àndeek Sonko sanctionné ko bu doy activiste sanctionné ko mais nag ki nga xam ne deful tamit bu bokkee APR deful bu bokkee ci Sonko deful feneen fu mu mën bokk doon sa adversaire deful bàyyi ko mu continuer jàngam kon ñi nga xam ni ñoo yor dossier yooyu te foog naa euh, ñi ngi ko topp ba tey mu ngi en jeexagul cent pour cent ndax rek première annonce bi la ñu def. Mm-hmm. dama leen di wax ni nañu xool ñi def ñu sanctionné leen. ñeneen ñi defut bu ñu am benn xolu kiñaan ci ñoom wala benn kujje ci ñoom ba mu bëgg leen yàqal seen jàng ndax nag ku atte fii bu ëllëgee boo jàkkaarloog sa borom di nga atte te atte boobu mooy gën a tar ndax suñu borom dafa yor vidéo yi boppam yoo xam ne amul kenn ku muy laaj mooy gisal boppam directement loolu dëgg la euh, donc dañuy euh, wéyal rek waxtaan bi Mamadou Diassi mhm. euh, wax nga ko sànq yaay représentant étudiant EBAD yi mhm. mën nga ñu expliquer tuuti yéen ku jàngee EBAD lan ngeen di jàng EBAD ak ku génn EBAD lan ngay def lan ngay liggéey ak fan nga war a mën a liggéey. Mhm. EBAD da di institut d' enseignement supérieur ñu rattaché ko ci université Anta Diop depuis 1967. Mhm. EBAD euh, mu ngi dispensé ci ay kuram lu mel ni bibliothéconomie di produit ay bibliothécaires lu mel ni documentation ay documentaliste di fay génne wala lu mel ni section archive ay archiviste di ci génne. section yooyu nag nekk des ingénieurs peut-être euh, de l'information documentaire c'est-à-dire document information bi nekk ci document bi nu ñu koy extraire ba permettre citoyen bi jot ci état bi profitoo ci euh, produire des informations fiables et rapides boo xam ne peut-être mun naa participer ci le bon fonctionnement de l'administration mais également permettre euh, société bi mu mun a conserver ay mémoire am c'est-à-dire mun a rappeler wu dëmbam mhm. li xewoon en cas aussi ki nga xam ne peut ci ay archives yooyu la mën a sukkandiku bu ëllëgee bu boo am lanteeg yoon wala mu documentation. Mhm. yéen ci njàng bi euh, naka lay demee njàng bi ñaata at at ngeen di def boo leen génnee liggéey. waaw avant avant nga fay dugg nag concours nga fay duggee parce que école d'excellence la école d'excellence la par concours lañ fay duggee ñu sélectionné ci euh, mooy mooy de cent personnes nga def information de trois ans euh, trois ans ngay def am une licence en sciences de l'information documentaire. Euh, bu ñu la sélectionné en master parce que léegi sélection euh, master bi sélection la nga dem master nga def euh, master en science de l' information documentaire boo génnee nga nekk conservateur de bibliothèque mbala conservateur des archives mbala nga nekk chef de service de documentation pour mun a gérer li nga xam ne mooy les centres de documentation. Mm-hmm. ci njàng bi est-ce que a ngi ciy boole xarala yu yees yi parce que gis nañ léegi métier archiviste. Mm-hmm. nekk na métier boo xam ne dafa mel ni métier bu xaw a yàgg la mm-hmm. du coup tey boo leen ci boolewul xarala yu bees yi gis mm-hmm. nañu barki démb Ndiaye yàggul dara njiitu Macky Sall inauguré na euh, data center mm-hmm. maanaam fu ñuy denc données yi mais boo xam ne euh, dañ ko méngaleeg xarala yu yees yi est-ce que yéen ci seen ñàng euh, ñu ngi ko ciy boole waaw loolu ñu ngi ko ciy boole depuis foog naa deux mille depuis deux mille cinq ñu ngi ko ciy boole ñu ngi ko ciy boole parce que yaakaar naa EBAD mooy école ouest africaine bi njëkk a introduire ci ay cours am des cours en ligne. Mhm. donc loolu aussi ñu ngi ci sant directeur bu baax a baax. Mhm. ñu ko ci boole ñu ngi initié par rapport aux techniques de l' information et de la communication. Mhm. donc loolu gars yi amuñ ci problème. xëy na problème bi ñu am kañ boo génnee problème insertion professionnelle te xam naa loolu bon. yaa la bàyyi ngeen ñëw ci ci kanam. dinañ si ñëw mais yéen au niveau de l'EBAD man EBAD du dégg étudiants yi di grève da amul problème dañuy dem gis autorité bi toog ak moom waxtaan ak moom mu wax ñu li mun a nekk ak li ak li munta nekk li mun a nekk aussi ñu fee xool nu ñuy def ba mu saafarawu te loolu aussi administration bi jógu ci ñu ngi def le tout ba l'étudiant de l'EBAT mun a nekk dans de très bonnes conditions de travail mhm. loolu moom yaakaar naa foo dem ci àdduna am na ay problème boo condition de très bonnes de travail tu fais allusion à quoi maanaam lan ngeen soxla pour seen jàng mucc ayib foofule ca EBAT ak foofu souvent dañuy soxla connexion. da ngeen am problème connexion. waaw mais réglé nañ ko. Mhm. amuñ problème mu salle de classe amuñ problème mu amphithéâtre donc EBAD dal bon de manière générale problème yi taxu koo bëri. Mhm. ay problème mu machine lañ amoon mooy ordinateur yi pour mun a initier wu comme ni ñu ko waxee sànq. Mhm. te problème boobu ñu ngi koy réglé rectorat mu ngi def direction bi aussi mu ngi jéem AD aussi dinañu ci jàppale tout prochainement incha allah. Euh, ñu ñëw seen insertion euh, dans le milieu professionnel. Mm-hmm. Euh, da da ngeen di génn rek ngeen am liggéey école bi moo leen di wutal liggéey wala yeneen a seen bopp. loolu bu njëkkaan moom d'après li ñu nettali da nga daan génn rek am am liggéey mais léegi tel ne plus le cas da ngay génn def trois ans ñu lay stage loolu di lay fay cinquante mille cent mille boo stage trois mois ñu renouveler waat ko ci ngay nekk di daw di daw EBAD ñu muy former ay professionnels lañ état bi war leen di mën a recruter comme tey bu ñu jëloon dans chaque sous-préfecture dans chaque préfecture dans chaque gouvernance dans chaque ministère mbala direction générale normalement waroon na am benn service boo xam ne mooy saytu documents yi ñu fay produire non seulement pour garantir la transparence mais également pour bu ëllëgee ñu mën a xam ne entreprise bi mbala société bi ci léeg ci léeg ci léeg la liggéey bu ko defee. Euh, citoyen bi dina am accès à l'information de mm -hmm. manière euh, rapide administration bi dina gagner temps te dina ci gagner ay économie mais également entreprise bi dina mën a euh, sauvegarder mémoire am pour que bu ëllëgee bu amee ku def ay recherche ci entreprise bi comme tey Rewmi FM bañ ko créer ay document la mm-hmm. ni muy doxee ay document la te pour loolu mun a wéy il faut mu kenn koo xam ne moo fiy toog di saytu document bi di koy classé parce que classé document yomb na mais dafa am classement scientifique boo xam ne da nga koy jàng lii lañ war a classé durée bi la war a def lii durée bi lañ ko war a communiquer bi waruñ ko communiquer durée bi mhm. parce que dafa am ay information yu sensible mbala amul information sensible mbala mhm. document bi jarnaa euh, jarnaa mbala jaru ko mhm. donc loolu il faut administration bi xam ko boo gisee lenteur administrative yi ñu noté par ci et là da dem soxla sa diplôme ñu la demal suba ba suba mbala ñu lay dàq demal ñëw demal ñëw demal ñëw demal ñëw donc problème boobu archiviste kon gis nga yenn entreprise yi euh, surtout boo soxlaa euh, papier fii ci Sénégal euh, problème archiviste la moo ko waral. problème archiviste bokk na ci ak à quatre-vingt-dix pour cent parce que les documents non seulement ne sont pas bien classés mais également yow da ngay par ci document sandi ko te document boobu suba mun nga koo soxla pour consulter ko consulter ko pour yow say fu bopp bala keneen ñëw consulter ko bala mu nekk une information personnelle nit ki ñëw soxla ko. te loolu loolu lañ noté mais tey boo jëlee archiviste war naa mën a régler genre question yooyu mm-hmm. mais loolu nag dañoo jàpp ne état bi nag fu lalul archiviste yi parce que am na benn loi buy protéger archiviste yi boole kook benn décret mm-hmm. mais ba léegi dafa mel ni loi boobu jëmul kanam ah mais pourtant archiviste yi yéen bëri woo leen Sénégal est-ce que war ngeen am problème pour am liggéey parce que dafa mel ni fii Sénégal EBAD kese moo leen di former waaw Sénégal EBAD kese moo fi nekk moom moo ñuy former actuellement nous sommes trois cent quarante cinq étudiants à l'EBAD mhm. ci étudiants yooyu am na ñoo am ay bibliothécaires lañ am na ñoo am ay documentistes euh, ay documentalistes lañ am na ñoo am ay archivistes lañ donc mhm. bëri wuñu mais boo gisee buñ génnee di chômer parce que état bi moo ñu fulaalul école nag lim mën mooy former mhm. bu la ma nga génn nag yow yaa war a jéem a xool nooy def ba dugg ci marché de l'emploi bi mais état nag moom moo war a xam ne ay documents dafa contenir benn sensibilité boo xam ne archiviste kese kese moo ko war a mën a gérer. d'accord ban différence entre euh, bibliothécaire documentaliste ak archiviste. archiviste waa archiviste mooy euh, d'abord ki collecter traité classer conserver ay documents. pour genre yooyu en général yan entreprise dañuy liggéey. boobu entreprise bu mun di doon mun naa nekk tey benn direction générale. mun naa nekk fii ci rajo mun naa nekk tey fii ci rajo parce que rajo bi à chaque fois da ngeen di ay documents. Mhm. documents mhm. naa nekk ci benn ministère parce que ministère chaque dafa am ay service chaque service aussi day day produire ay documents te document bu ne day traiter ay affaires te affaire bu ne dafa am ci lu ñu ko jagleel. te euh, processus processus dañ ko war a topp dañ ko war a ba mu jeex. Mhm. bu ñu ko toppee ba mu jeex loolu la ñuy wax archive. Euh, point âge bu ñu ko toppee ba mu jeex dañ koy classé teg ko na la pour en cas de besoin ñu jëlaat ko consulté waat ko loolu la archive deuxième âge mhm. troisième âge bi nag mooy ba nga xam ne bouclé nañ toutes les procédures dans ce cas dañuy jël archive ñu classé ko ci ay boîte dugal fële mhm. pour en cas boo solaatee yooyu mbala ngeen tey ngeen gañoon benn marché ci archive yooyu ngay mun sukkandiku pour pour pour mun a def la continuité administrative. Mm-hmm. donc euh, loolu la bu dee bibliothécaire bi nag moom ay bibliothèque lay gérer. tout ce qui est collection waaw ci école yi ci université yi. pourquoi pas ay bibliothèque nationale tey mm-hmm. sous région bi am na ay pays yu am ay bibliothèque nationale mais Sénégal amuñ ko après bibliothèque universitaire amuñ fi bibliothèque nationale. Sénégal fu laa lu ñu liir xale yi liiratuñu. waaw liir université sax da ngay dem léeg-léeg gis livre yoo xam ne xotti nañ page yëpp. waaw mais bon euh, loolu ñëpp la. am na ñoo xam ah non non non duñu ñëpp la nag mais étudiants yaa ngi liir ba léegi parce que boo demee ci bibliothèque yi ñu ngi fa fees dell boo demee ci parterre yi aussi ñu ngi jënd ay livres donc ñu ñu ngi liir mais xëy na état bi daal moo war a baral loxoom jàppale gaay bu baax. est du yéen aussi euh, benn côté parce que yéen néew ngeen ci dëkk bi. Mhm. te pourtant wax nga ko sànq nguur bi kenn fulaalu leen. Mhm. te pourtant Deité Sainté ba ñu construire euh, mun na accueillir archiviste parce que déjà yéen vous êtes au nombre de trois cents. yéen mhm. étudiants yi. waaw sans compter ñi nga xam ne ñoo leen précédé. waa génn nañ waa waa loolu moom ñu ngi ciy xaar état bi yaakaar nañ ne Deité Sainté boobu. Euh, EBAD am na fa euh, nu mu tudd yi am nañ fa place bu mhm. baax a baax te yaakaar nañu aussi dina ko dinañ ko def le plus rapidement kon su ma déggee baax bari na ñi nga xam ne dañuy génn du ñu am liggéey du ñu am liggéey ci ay stage lañuy ne ñu lay stage loo di di koy renouveler di lay fay ay salaire yu bi nga xam ne da nga ciy paas di ñibbi doo mun sa may ki ngay àndal mbala mhm. so kii benn 1000 francs seen métier bi nga foog ne euh, à part état bi Sénégal moo ko parce que bëri na entreprise yu amul archiviste bëri na ay entreprise yu amul aspis te pourtant loi bi dafa ne ku créer euh, entreprise rek norm normalement war nga mën a am aspis boo xam ne mooy saytu document yi mais Sénégal nag fulaaluñ ko mais nag loolu pour ñu fulaal ko nag dafa kilifa muy état état moo ñu yilif ñu ñëpp ci lañ bokk moo ñu yilif donc moom moo war a porter cette politique ñun bëri wuñu bu ñu yuuxu kenn du ñu dégg moo tax ci genre occasion rek lañ mun a ñëw pour mun a mun a joytu mm-hmm. xëy na nag état bi dinañu dégg ñu déggee aussi mais aussi il faut collectivité euh, locale yi jàpp ci. surtout mm. surtout les mairies. parce que mm. dañuy seetlu ne euh, manifestation bu amee. dañuy mm. saccagé mairie taal état civil yi. Mm-hmm. mais alors pourtant mairie yooyu normalement war nañoo recruter ay archivistes ñu saytu documents yi classé leen dans les normes bu bu ko defee ku soxla certificat de mariage nga nga jot ci. Mm-hmm. ku soola extrait nga jot ci ku soxla yeneen certificat de décès mbala ñu jot mais en même temps aussi ñu numériser leen pour que genre incident bu amee. citoyen bi mun a ci ay parce que ñun jàngat bi ñu def ñu bëri ñu ngi bàyyi jàng. Mm-hmm. bala ñu dem ba classe examen ñu leen mënoo def examen ne parce que ay problème papier la te problème papier yooyu ah, décideurs yi dañuy jël euh, les documents confier ko ko xam ne deful formation. Mm-hmm. kooku gérer ko nu mu ko neexee da ngay ñëw fekk ay archives yi nu mu tudd registre yi nekk ci suuf yi nekk fii. Mm-hmm. yi maxe yee xotteeku te passe bu xotteeku rek yóbbu yóbbu na information jàmm te information mën na koo topp. ba ba ci giiru dundam donc loolu aussi dañ koy ñaax collectivité locale ñu jàpp ci di recruter ay archivistes ñoo xam ne dañu leen former en la matière ñoom ñu gérer les documents de même que les conseils eh, les les conseils mm-hmm. loolu aussi plaidoyer bi ñuy def envers eux la. ñoom ñu mm-hmm. ñoom ñu jàpp ci bu baax a baax. am na solo Mamadou Diassi Modou Fall seen métier bi ñoom donte bëri wuñu waaye bëri na ci ñi nga xam ne bu ñu génnee duñu am liggéey wala ay la ñuy doon. Euh, waaw xam nga te pourtant ñi ngi def liggéey bu bu mënul ñàkk sax nag mhm. ci doomu aadama ndax arsif moom boo delloo ca mag ña kàggu bi lañ ko tuddee woon ci wolof dellu ca kàggu ba mbind mu yàgg ma nga fa bàyyi woon nga mën ko saytu denc ko ay cent boo ñëwaatee mu fàttali la booba la nga bëggoon wax mhm. wala fa nga jëmoon kon ñoom ñii bu ñu ñëwee bëgg a yeesalaat loolu tey dégg naa la sànq nga ni leen seen métier mi du lu siiw moom it mu ne état bi la euh, pourtant nit ku ne am nga arsif ndax nit ku ne day juddu day mhm. faatu boo juddoo da ngay am kayit boo mhm. faatoo da am kayit kon kenn ku ci nekk am nga arsif léegi nag ñoom seen métier moo waroon gën a riche mhm. ñoom métier bi ñu nekk buñ ko fullaalee moo war a gën a riche euh, mooy métier bi ëpp ak mujj maanaam moo ëpp avenir ci kaw buñ ko fullaalee euh, tey comme li mu wax collectivité locale yi maanaam mairie yi boo fa demee doo fa fekk ñu mel ni ñoom ba tax buñ ko taalee. ay yaama neex la ñuy jël teg leen. yaama neex ñuy classé. voilà ba tax buñ taalee mairie yi dañuy nekkaat à zéro boo demee fu ci mel ni eh, ci banque yi doo fa fekk ñu mel ni ñoom. Mm-hmm. boo demee ci rajo yi doo fa fekk ñu mel ni ñoom boo demee ci télé yi fekk ñu mel ni ñoom nga dem ci entreprise yu mag yi. nga dem ci ministère yi nga dem ci eh, assemblée nationale et cetera. foo ci mm-hmm. dem rek doo fekk ñu mel ni ñoom. Mm-hmm. pourtant ñoom seen liggéey ci point yooyu la dem des fa pour nit ñi nga xam ne ñoo fay ñëw seen ay archives wala marché yi ñuy ñoom ñu mën di ko topp comme ni mu ko waxee sànq procédure la boo xam ni da am na tàmbali mais amul fu mu yem. Mm-hmm. bon ñii nag boo leen fulaalul ñàkkal leen solo ngir seen yar. Mm-hmm. néew na nag nga gis étudiant bu yaru comme ñoom. Mm-hmm. li mu wax nii mu ñoom ñu grève <laughs> non si man ku ma xam-xam ni du ma du faral éti élèves yi. mais nag su ma gisee ku nekk ci dëgg dama naan moo nekk ci dëgg. Euh, néew na nga gis ñu yaroo comme seen kuréel gii euh, nga xam ne comme ni mu ko waxee du ñu grève du ñu sànni xeer du ñu toj nga ni ko nu ngeen di def mu ne. Euh, bépp mbir bu ñu bëgg a régler dañuy gisante ak autorité bi waxtaane ko mu am saafara wax na sànq yu bari yu ñu doon jàmbat ñu gisante ak autorité bi mu am saafara kon yeneen élèves étudiants yi dégg wala yeneen kuréel yi nañu roy ci ñi pourtant mos na ma wax fii ma ni waxtaan lu mu mayewul toj ak taal ak yàq du ko may toj ak taal ak yàq fa muy mujjee rek mooy jàpp ak dàq mm-hmm. toj yàq fa jeexee mooy jàpp rey ak dàq ñu ñu dàq démb dégg nañ ko ci tojtal ak yàq nañ nekkoon léegi nag loolu dama leen ciy encouragé bu baax a baax waaye fenn rek laay waxee ak yéen mooy li ngeen ni état bi moo war a def ay jéego pour ñu fullaal leen ci seen liggéey bi dëgg la état bi war na def ay jéego waaye nag bu ngeen jëlee lépp lépp léppit na état bi état bi état bi rek kon Euh, ni ñu xamee élève étudiant yëpp rek ba tey fa ngeen nekk élève étudiant moom léppam état bi la moom du jëmal boppam dara li may faral di wax bu ma leen bëggee tooñ dama naan yéen ay ay euh, ma wala ma bañ a wax baat bi tey <laughs> comme ñoom ñooy suñu gan <laughs> yéen ay producteur ngeen uh-huh. yéen ay consommateur ngeen mais du ngeen ay producteur euh, waaw hmm. ñeneen ñooy produir yéen ngeen di consommer hmm. rek <laughs> léegi nag yéen tamit da ngeen fexe nag waaw da ngeen fexe nag seen seen seen métier bi ngeen ngeen fas ci yéene doon ci ay producteur hmm. maanaam état bi semon mais xeex bi nga xam ni mooy ñor dëgg dëgg dëgg ba entreprise yi nangu leen xeex bi nga xam ne mooy ñor dëgg dëgg dëgg ba état bi nangu leen xeex bi nga xam ne mooy ñor dëgg dëgg dëgg ba ñi ëpp ci biir réew mi nangu ne ah yéen kat mun leen ñàkk ci benn kuréel mhm. boobu yéen la ndax mhm. état bi nag euh, def na benn jéego mhm. muy euh, inauguré na benn benn bërëb boo xamante ne si yéen yéen a ko tax a jóg ah loolu lañ yaakaar si bu mag a mag boo xam ni coûté na état bu Sénégal gën ci Afrique ci Afrique ci Afrique waaw coûté na bu Sénégal ay centaines de milliards kon moom def na ci jéego léegi nag leneen li muy xaar mooy li ngeen ko war a fàttali ndax état du lépp mooy ñëwandoo ci boppam rek mu tënk loolu état Eh, seen i soxla yéen da ngeen ko koy jàmbat mhm. baykat bi jàmbat ko soxlaam mhm. eh, ki nekk ci naaj bi di jaay ngooñ jàmbat ko soxlaam mhm. ki nekk ci naaj bi di jaay pono jàmbat ko soxlaam ministre bi jàmbat ko ay soxlaam et cetera maanaam ñëpp lu waaye di yëngu rek da ngay jàmbat état soxla léegi nag bu fekkentee ni yooyu yëpp romb na ci benn def benn jéego muy seen seen seen métier bi nga xam ne dangeen jàpp ni lu tuuti la lu lu lu ñàkk bayre la mhm. mu def benn jéego boo xam ne coûté na ci ay milliards léegi nag leneen li nga xamante ni si moo koy gën a valoriser mhm. moo koy gën a sécurité mhm. yéen ci lay bàyyikoo muy lan lëlu bi ngeen nekk rek ngeen bañ di lëlu bañ a tayyal tamit hmm. fépp fu ngeen jàppoon ne bu ngeen fa wooteem ndaje moo xam da ngeen di def port à porte moo xam da ngeen di wër gox yi xamal nit ñi hmm. métier bi ngeen nekk lan la hmm. def ko ay panel def ay kuréel yoo xam da ngeen di daje nit ñi di daje ak maire yi daje ak député yi daje ak directeur de entreprise yi xamal nit ñi ne métier bi ngi nekkat ñun lii la mënul ñàkk ci li ngeen di def lii ak lii ak lii mu koy valoriser yéen it li ngeen def fii la leen di protéger ëllëg ndax mairie bi ñu taal tey borom nekk borom mairie bi ak euh, ñi dëkk ci localité bi yëpp seen ay kayitu doom lakkaale mhm. domanial bi lakk muy suuf si mhm. kooko tey pour mu amaat papier yooyu dellusiwaat problème la léegi bu amoon kenn ku mel ni yéen wala ñaar mhm. du ci sonn mu ngi ci seen ay machine mi ngi ci seen kàggu dangeen ngeen di commencé waat rek copier waat kayit yooyu indilaat ko tegal ko ko ci taabalam kon état bi baax na sebon mu jàppale leen métier mi gën a siiw nit ñi gën leen reconnaître mais yéen tamit il faut ngeen bay ci seen waar comme da ngeen a mhm. néew mhm. ci néew ci ci ci kàddu gi mooy da ngeen a tuuti mhm. trois cent nangam personne bëriwul bëriwul boo demee euh, université da nga fay fekk kuréel boo xam ni deux mille personnes nga fekk fa kuréel boo xam ne quatre mille personnes nga fekk fa kuréel boo xam ne cinq mille personnes léegi kon yéen bu ngeen taxawee doon ay trois cent nanga neex a fàtte ci biir population bi léegi nag pour ñu fàttaliku leen ngeen bañ ñu fàtte leen yéen yéenay sol seen dàll dem fekk ji ñi nga xamante ne si ñoom ngeen jàpp ne ñoo yittewoo métier mi ngeen yor muy collectivité locale yi entreprise yi rajo yi télé yi assemblée nationale ministère yi mm-hmm. et cetera su yàggee tuuti rek mm-hmm. ñeen ñi leen fàtte woon mm-hmm. am na fi ñu toll ñoo xam ni bëgg nañ dox ba deeg ñu mel ni yéen pour dugal leen seen entreprise wala dugal leen ci mairie mais xamuñu fan ngeen nekk xamuñu fan lañ leen di fekk kon yéen tamit day baax ngeen wàcc sur le terrain. Mm-hmm. def euh, li nga xamante ne si mooy genre campagne. Mm-hmm. fekk ji kilifa yooyu fekk ji euh, ñooñu nga xam ne ñoom ngeen war a liggéeyandool. Mm-hmm. xamal leen seen liggéey bi lan la ak ñoom lan ngeen leen mën a apporter. loolu gis naa ko ngeen bañ a xaar état bi rek. Euh, doguma lu Modou Fall bari na tey ñoo xam ne xamuñu sax entreprise. daa soxla man xaw ma maa ngi koy doog a dégg benn archiviste wala bari na fi. seen métier maa ngi a dégg sax bari na fi <laughs> ebaat tey bëggoon naa xam say motivation yow. en tant que étudiant foofu wala pare nga fa. Eh parce que bëri na étudiant yoo xam ne man j'ai fait l'UCAD mhm. ñoo xam ne dañuy def concours bi par dépit da dem benn fac lettre nekk benn fac droit jàng jàng bay bëgg a dee. Mhm. yow doo valider sax deux ans wala doo am sax licence. Mhm. nga wala parfois nga xam ne yow boo génnee foofu tu n'as pas les nga mm. dem fay benn école privée euh, du coup da ngay jeex ci concours bi bu mm. génn rek nga dem def bëri na ci étudiants yoo xam ne mm. ñoom dañuy wër concours yi boo xam ne daal euh, cherut foofu noonu au niveau de l'université parce que dès l'instant nga admis ko rek boo paree da ngay jàng ba pare mën nga am possibilité liggéey du amour moo leen ciy dugal <laughs> du aussi envie de faire euh, de l'archivisme wala documentaliste wala nekk mm, bibliothécaire mais juste pour euh, am benn diplôme mën a nekk opérationnel dans le milieu du travail pour mën a cacher quelque part quoi voilà ah. mm. bon man nag euh, samay motivation est baat avant ma ci dugg fac lettre lañ ma orienté woon département lettre moderne ma def fa trois mois yàlla def ñu sélectionné ma ma waroon dem voyage euh, dans le cadre du volontariat de l'Union africaine. Mhm. ma dem fa diire fa dem novembre ñëpp si août. Mhm. Euh, mhm. euh, de la fac. donc mooy loolu maintenant sama professeur bi ma yoroon en français terminal mu ma doon conseiller yàlla def ba ma ko bëggee déposé xaw a feebar moo tax mujj ma ko déposé. ba ma ñibbisee aussi gis ñu annoncé concours bi ne commencé na. ci laa dem déposé comme ñëpp tenté sama chance yàlla def ma bokk ci élec euh, candidat yi jàll. Hmm. loolu moo ma dugal EBAT. Hmm. li nga wax nag am na mais nag bëriwu fa bu fekkee ne am na fa aussi euh, amul EBAT parce que EBAT ñu fa nekk yëpp dañoo am amour motivation mais aussi pour euh, servitude bi pour mun a servir la nation. Hmm. à travers les archives à travers les bibliothèques et à travers les centres de documentation pour mun a réer information bi garanti la transparence la démocratie renforcer les droits humains. mais également lutter contre la corruption ak euh, nu euh, nu nu mu tudd euh, citoyen bi aussi mun am accès. Hmm. à l' information c' à dire état bi lu muy def te ñu mun koo wax ñu xam ko citoyen bi également bu soxlaa dëmbam ñu mun ko koo wax parce que souvent dañuy wax ne un état sans sans archive est un état hmm. mooy état boo xam ne bu amul archive mun ta fàttali ko dëmbam. koo xam ne dëmbam da ko un état sans archive est un état amnésique. amnésique donc c' est ça. moo tax archiviste yi aussi ñoom xam nañ mission boobu kenn dugg foofu foog na par hmm. par tapale bala pour mun a daw quelque part. mais dañu fa ñàkk fa de. ah bëri na ci ak ci bëri. man ma xam parce que boo duggee boo duggee Ebaat ba gis. Edi ay la boo duggee Ebaat ba gis Edi Diagne ñu motivé woo. am na ba jàll ko. te pourtant du loolu la ñu bëggoon. ñàkk fa. non mais non yaakaaruma ko yaakaar non loolu moom yaakaaruma ko parce man avant ma fi ñëw depuis sama tudd ci ñaar ñi may rek am na ñaar ñoo la jege lool tudd leen rek ah non non gisuma ko ci nag sincèrement ñi ma ci ñi ma ci xam ñëpp motivation lañ am ambition mais également envie de servir d' accord peut boo demee ba si biir ci la motivation bi ak envie di def <laughs> ay copains lañ <laughs> ah. mais daal bëri na ñoo xam ne dañuy tâtonner rek di ah. làmb rek yaa gis ku defandoo ñett concours ah. bu ca génn rek mu continue nga jëbali ca booba voilà <laughs> euh, bëggoon naa xam est ce que archive hmm. euh, képp kuy citoyen sénégalais mun na ci am accès par exemple man benn Sylvie Faye soxla woon benn archive hmm. Euh, buggoon dem bëgg ko jot par exemple benn dossier ma dem ne dossier bii laa bëggoon ngeen indil ma. Mhm. est-ce que bu ma ñëwee dinaa ci am accès. bon archive nag euh, dafa am euh, lu ko lal dafa am loi bu ko tëral lii mooy archive nii lañ ci mën a jotee nii lañ ko mën a traité archive daf boo ko conservé boo ko jëlee conservé ko y a plusieurs types d' archive mhm. am na archive yoo xam ne day wax ci diplomatie am na yoo xam ne day wax ci sécurité état am na yoo xam ne day wax ci vie Euh, vie vie privée wu nit. Mhm. am na ñoo am ay archives médicales mhm. du n'importe quel archive lañ lañ mën mhm. ci durée de communicabilité loolu la ñuy wax en archivistique. la durée de communicabilité. na archives yoo xam ne à partir de vingt cinq ans lañ koy communiquer am na yoo xam ne à partir am na yoo xam ne boo ko hmm. Hmm. am na yoo xam day dem sa ba ay ay cinquante ans ba ay cent ans ça dépend ci euh, information ya ca ne

vie médicale euh, mbala euh, diplomatie yooyu yooyu pour nga jot ci dafa am ay durée. bu dee mbirum justice nag. par exemple benn kenn ku ñu assassiné woon. Mhm. il y a quelques années. ma xëy man journaliste bëgg ci am bëgg def enquete mhm. ndax bu ma jógee dinaa ci jot. waaw comme comme diplomatie rek parce que archives aussi dafa am lu ko lu ñu ko classé à part peut-être juge ba ci am accès ak activiste bi chargé yow conservation bi. pour ñu am ci accès aussi dafa am ay ay a yu ko lal mm-hmm. délais yooyu tant que jotul ci am accès n'empêche nag mun nga am une source proche du dossier boo xam ne mun na la wax mm-hmm. nekk ci archive mais pour nga consulter ko aussi archiviste bu la ko joxee di dina violer loi te bu mm-hmm. violer loi aussi am na ay sanctions ñu ci prévoir parce que balaa nga nekk archiviste da waat da waat comme avocat comme médecin bi comme keneen ak keneen ak keneen Euh, nu ne lañ koy defee. am na solo seen métier bi métier bu am solo la. tey am ngeen jafe-jafe pour am liggéey. daal du métier nettalikat. voilà waaw boobu moom da ngay téye sa làmmiñ Euh, Sylvain yow mënoo liggéey foofu. yow aussi doo doo doo far ci benn parti politique. dooguma la sax du métier nettalikat c'est vrai même bibliothécaire sax man je me rappelle ah, au collège Sacré-Cœur. yow mënoo liggéey foofu euh, silence. yow mënoo liggéey foofu bibliothécaire ay nit yu téye la ñu doon boo leen gisee. bu ñuy dox sax doo leen dégg. mais am na lu ma lënt lu ma ko bëgg a laaj. bu ñuy dox sax doo leen dégg. am na lu ma lënt lu ma ko bëgg a laaj nee na am na archives yoo xam ni euh, diire bi day dem cinquante ans léegi yow jeune bi koy jàng xam nga cinquante ans moom kenn du ko def ci ci université hmm. te amugoo cinquante ans te diire bi matagul ndax dañ la permettre nga jàng ko wala boo bëggee xam histoire boobu. non cest bu ñu la nee euh, yow mën a am accès ci archive bi. Mhm. fii ak cinquante ans. Mhm. du du sa de formation. yow kay yow yaay màgget balaa nga mais mais mais mooy archive bi nga xam ne dañ koo jël conserver ko. ci ci ci ci ci ci rayon service d'archive bi. Mhm. léegi yow mi nga xam ne boobu kenn du ci jot. tant que cinquante ans yi kon ku kenn yow mi jàng yow mi nga xam ne yaa ngi ci biir euh, fac bi tim di jàng mënoo xaw. waaw tant que recruté ma ci euh, euh, tant que recruté ci service boobu ma nekk fa agent. waaw ah. assermenté mu aw ma ci accès. Mhm. donc ay ay ay documents yu. compétent boobu rax na ay tappale de. Ah? boobu rax na ay tappale de. mais noonu la mun a ñoo dem archive nationale def visite gars yi guidé ñu war ñu quelques quelques mais nag cela ne veut pas dire que archive bu fa nekk rek ah, am nañ ci accès même am na ay agence ay agents yu fa nekk sax duñ ci am accès mhm. parce que confidentialité bi la mhm. tey man ak yow euh, mën am problème ma gérer say archive wala ma gérer sa archive mbokk tey mun na koo génne yóbbu ko ci télévision wala ci rajo yi ak mhm. donc ak bari fi mu ne voilà loolu ñun ñun nag suñu métier nag daf ñoo teree loolu moo tax souvent boo ci nekkee waroo fal ci benn kuréelu politique wala waroo nekk nettali ay nit yu teey lañu ay nit yu teey ngay nekk maandu maandu voilà merci Sylvie loolu la <laughs> donc en quelque sorte loolu mooy métier archiviste mhm. am na solo yéen euh, am ngeen jafe-jafe pour ngeen am liggéey boo leen génnee bëri na ci wax nga ko sànq ñoo xam ne dañuy génn ñu leen di stage loolu rek di leen di fay cinquante mille ndax cinquante mille du dara fii ci mhm. Sénégal mhm. est-ce que jéem euh, ngeen ngeen former association yéen ñi nga xam ne am ngeen déjà seen diplôme euh, liggéey rek moo leen desee am salaire bu décent mën a subvenir à vos est-ce que am ngeen lool déjà. est-ce que wala est-ce que commencé ngeen dox ay ay def ay actions pour ñu dégg leen. waaw Sénégal foog na euh, am na ñetti kuréel yoo xam ne ci même affaire boobu lay yëngu. Mhm. ñaar yi nag jàppuma leen mais am na bu ñu ci tuddee ASBAD mooy association sénégalaise des bibliothécaires archivistes et documentalistes. boo xam ne mu ngi ci mu ngi ci liggéey. Mhm. mais nag comme ni ma la ko waxee rek bëriwuñ. Mhm. foo yuuxu duñ la dégg. Euh, moo tax ñu étudiants yi nga xam ne ñoo nekk en cours de formation ñu aussi ñu bëgg a jël notre destin en main mhm. teel a commencé combat bi pour que bu ñu ci yégee mhm. li nga sor bi nga xam ne suñu suñu ay aînés loolu lañ si biir ñu bañ koo si biir mhm. euh, moo tax dinañ initier euh, tout prochainement ay démarches dem gis yenn autorités comme le conseil économique social et environnemental jéem a rencontrer secrétaire général bi fa nekk dem la au conseil des collectivités territoriales dem un peu partout jéem leen sensibiliser. Mhm. mais également ñu ngi prévoir def des tournées dans dans les euh, mhm. comme ça jéem a rencontrer peut-être l'officier d'état civil mbala. Euh, maire bi fa ne aussi xamal ko lan mooy njëriñu archive ci doomu adama mhm. ak buñ ko conserver aussi lu ñu mun a apporter ci ay ay ay bien te lu ñu mën a euh, mën a dandal ci ay kii nu mu ay jafe-jafe ay jafe-jafe mm. Mm. donc loolu aussi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jéem a initier mais am na ci kuréel bu ñu bootu mu ñuy wax asbad mm. asbad aussi moo ci liggéey bi mais duñ ne liggéey bi doyu mais lu bëri des na d'accord voilà donc ñu aussi à notre niveau dinañ jéem lépp lu ñu mën dinañ ko ci def mm-hmm. en tout cas de seen métier bi am na solo lool Modou Fall mu ngi koy wax sànq mais ndimbal da ca war a fekk loxol borom doo leen toog rek di xaar Macky Sall mu jox leen liggéey te ñu bëri xamuñu sax yéen euh, ndax yéen am ngeen boobu leen diplôme ba toog di xaar liggéey bëri na ci entreprise yoo xam ne mhm. xamuñu sax dañoo war a soxla ay archiviste yu mel ni yéen wala ay documentaliste wala ay mhm. bibliothécaire mhm. bibliothécaire rek ngay gis ci école yi ak ci université mais archiviste ak documentaliste ñu bëri xamuñu ni da nga koy jàng ba am ci diplôme Euh, dugg benn entreprise nga di ko fa def kon nag yéen waroo leen toog rek croiser les bras da ngeen war ay action euh, di génn di def ay conférence de presse wala ay marche gouvernement bi dégg leen ñu mun leen insérer mm. ndax dayta sent ba nekk jam ñaayu je pense que am ngeen fa place ñoom ñoo ko tax a jóg c'est-à-dire Sylvie euh, gis nga seen métier mi mu ngi am ci entreprise yi de mu ngi am ci état yi mu ngi am ci mairie yi fépp mais yi seen jarbaat yi lañ koy def. Mhm. Mhm. wala seen doom yi. waaw effectivement noonu lay demee. waaw mhm. non ñun ci réew mi nañu dëkk. waaw loolu am <laughs> réew mi moom xam nañu li fi xew. c'est-à-dire mais euh, jox gi koy jox seen jarbaat yi seen doom yi yëpp xam nañ ni dinañ xam ni ñoom sax loolu du seen rôle wala du seen métier soxla nañ leen feneen. mais nag mun na xamuñu ñu mel ñu ñu ñu mel ni ñoom. xamuñu ne réew mi am na fi xale yoo xam ne loolu rek la jàng. ñu jàng rek mbirum mbirum document denc gi sàmm gi. topp gi ba boo demoon cent ans boo laajee li nga defoon euh, ci ginnaaw ñu mën la ko indil wan la ko. Mm-hmm. mu mel ni lu bees. Mm-hmm. am na ci entreprise yi. Mm-hmm. am na fépp mais seen doom yi lañ koy jox ñoo koy gérer. wala seen jarbaat yi gérer leen seen ay këyit. léegi nag tey loolu sax bënul muy nga am nga am euh, entreprise jël sa doom nandal ko ci mu gérer këyit yi bënul waaye nag boole ko ku ko jàng comme ñii. mu di ko orienté ñu bennoo ñoom ñaar. ndax nag euh, li tax ma ni bonul mooy réew mi yegg na foo xam ne tey koo wóolu bu subaa mu doon sab noonu. <laughs> koo wóolu bu subaa comme ni nga ko waxee lu ngeen waat waat man ngeen waat de ay waatkat ngeen waaye ñaata nit a waat ci réew mi ba pare jalgati lañu waatoon weddi seeni waat. Mm-hmm. réew mi waatkat yi ñoo dàq kàcc ñu bal ma ci kàddu gi waatkat yi. Mm-hmm. luñ la waxal luñ la wax jërul nga di ko gëm du dëgg. Mm-hmm. ndax bërki démb gis nañu euh, benn médecin bu génn wax. li nga xam ne moom lay dund ca biir kër ga bay wax secret yi nga xam ne mooy jóge directement ci bureau DG bi. Mhm. te moo ne dafa waatoon ñaata avocat ñoo waat daan ni waxoon waxeet. te duñu àtte dëgg. voilà ñaata juge ñoo waat. Mhm. daal génn ñaata sëfoori kilifa ñoo xëy jël ay photo publier ci internet bi jël ay audio publier ci internet bi pourtant bi ñu ñëw dañoo waatoon xam nga nit ñi li ñu jàppee waat mooy ki taxaw teg kaamil ci sa kanam wala wala walla wala benn benn këyit rek lu mën a doon daal di yëkkati sa loxo. Mm. déedéet déedéet. Mm. ñaar rek lañuy ñuy waatee ci réew mi alxuraan ak biibul ku neex nga teg ko wax ci lu dëgg xam nga li gën ci waat mooy jikkooy nit ki métier moo mën a nekk na la sa jikko na nga waat ak sa jikko ba noppi. Mm-hmm. maanaam sa ngor ak sa juddu ak sa dayo nga nga nga taxaw waat ni man ci sama àdduna fa su ma yéene def lu lor nit su nit rafetalee jëme ci man ma rafetal jëme ci moom mhm. su nit ñaawalee jëme ci man ma rafetal jëme ci moom mhm. sama àdduna kat dëgg rek laa fas yéenee wax moom laa fas yéenee def donte dañu may rey boo ci nekkee mooy waat bi gën a wóor mais taxaw waat publiquement ci télé bi wala waat publiquement ci rajo bi suba mën nga cee génnaat waatkat yépp waat nañ tey suba ñu génnaat ci waat léegi nag euh, seen métier mi métier am secret la métier la moo xamante ni si képp ku ci nekk da ngaa war a moom ñett mhm. moom sa làmmiñ mhm. moom sa bët moom say tànk maanaam waroo bëri àndandoo ki xarit mhm. ndax bu yàggee mooy waral nettalente sa bët warul sob loola romb nga bëgg koo yër kayit bu la romb nga bëgg koo tiim ba xam la ca xew <laughs> sa làmmiñ it war nga koo moom ba xam fooy waxee ak kañ ngay wax ak fan nga war a wax ah seen métier mi nag alhamdulilah ba mu bariwul mais nii jikko yi yàqoo bés bu nit ñi baree ci seen métier mi si ba xew bu ngeen demee ba benn benn benn mbind mën nañ ni ku amul bu demul cinquante ans ci àdduna bi kenn du ko yër mhm. bu demul vingt cinq ci àdduna bi kenn du ko yër bu demul trente ans ci àdduna kenn du ko yër yéen néew gi ngeen néew a tax ngeen maandu ba demu leen loqorti ko <laughs> bis bu ngeen ëppee trois cent <laughs> fa ñu ko denc daañu yeewu bis ñu ne dajji nañ ko sàcc nañ ko Sénégal daal di tas. bis bu ngeen bis bu ngeen ëppee 300 yi maa ngi ñaan ngeen bañ a passé. 300 eh, fii ngeen toll. Mhm. ndax bis bu ngeen ko rombee. Mhm. réew mi dana tas. ndax lu nit di denc juróom fukki at doo ko am ndigalal génnee ko loola yaakaar naa jàmm nekku ci. Mhm. loola leneen la dama dama ci xaw a desee leer nag nangu ma koo leeral mooy ñu nga ne diggante France ak Sénégal. waaw daal ni loola permettre wuñ kenn mu yër tànka cinquante ans yi ma. waaw mais loolu exemple la rek ah. waaw <laughs> bañ a fi ñu woowu la am lënt nga ca moo xam ni. ah, ah lënt boobu rek ma sañoon mu leer ci suñuy bopp. lan la France def sénégalais yi <laughs> wala lan la Sénégal def France. Hmm. ba tax ñu ne ah fa suñu yéene mukk amuñ juróom fukki at te génnewuñ ko ndax ñi ko bind dañ ne ah. nañ leen gaaw protéger ndax ki bind moom dem na ba am vingt cinq ans trente ans doo ko mën a bind mhm. ñu ne nañ leen protéger diggante soixante dix ans quatre vingt man naam du leen fi fekk mhm. bu loola génnee buñ leen di wër fekk ñoom génn nañ àdduna mhm. ndax toj toj nañ ca bind ndax dañ caa bind lu dëgg ndax dañ caa lu ñu ca wër ta bind ba tax ñu leen di protéger na am nañ fanweeri at bind ko nañ ko dencaat juróom fukki at ndax buñ leen leen fi nekk léegi nag loolu moom ay tappale yu ngeen denc la yu làqatu tappale yooyu nag da ngeen koy làqarti bécc ko ci bëti sénégalais yi 50 ans yooyu da ngeen koy wàññi mbaa su ngeen ko wàññiwut tamit mm. ngeen fexe xamal sénégalais yi lan moo nekk ca kàggu booba ba tax ngeen bëgg koo denc 50 ans man maa ngi jàppoon ni lu métier bu sérieux ngeen yor métier bu leer mais nag seen métier kat ah. moom métier Sénégal yëpp su réewuñ am na ay njuuj njaaj ak affaire boo mënee jël boo mënee jël benn boo mënee jël benn mbir denc ko ci 50 ans mm. jël benn mbir denc ko ci 30 ans te ko bind am 30 ans wala 25 ans ah, diggante Sénégal France gi de ñor na ma lool mbaadu dañ cee bind naka nañ reye woon suñu maam yi biñ leen biñ leen suul ci caaro yi mbaadu dañ cee bind ah bañ leen reyee suul gi ñu wax amul dañ leen jël yóbbu mhm. mbaadu mbaadu mbaadu loolu daal ma mosoyoon mu gën a leer ndax man nag lu leer képp leeralal ko jaas waaw voilà euh, sëñ Modou pour ma leeral la ñu yoruñu ay archives yu wax ci diggante Sénégal ak France loolu exemple la woon ah, exemple la woon comme euh, archive buy wax ci diplomatie mbala coopération militaire donc du archive yoo xam ne euh, mën nañ koo jëlee publier ko au, au grand public di comme euh, du jour au lendemain. 50 ans bëriwul. loolu loi bi moo ko aaye non 50 ans mu ngi dépendre ci affaire bi ñuy traité ci ci document bi. Mhm. tey yow mën nañu di traité sa vie privée ndax da ngaa da ngaa leboon am kër extra extra yoo xam ne warut a génn document yow waruñu koo génne tant que amul yeggul yenn diir yi bi mu ngi commencé à 50 ans ba ay 100 ans a compter de la date. Mhm. de la conservation léegi 50 ans yooyu nag ça pas dire que dafa lu ñuy làkk. Mhm. mais dafa lu ñuy protéger. c'est-à-dire réew mi aussi il faut ñu protéger l'unité nationale. ki ko bind dinañ ko protéger mais aussi il faut ñu protéger unité nationale. par exemple tey bu ñu ci archive caaro yi yegguñ ci mais peut-être am na information ñu ngi ci nëbb tey boo waxee mun naa taal réew mbala mun naa yàq diggante ñi réew ak dëgg lay donc aussi il faut ñu il ko. mais nag du dañuy won euh, dañuy nëbb ay information mais c'est-à-dire bi noonu la tëddee te loi bi ko réglementé aussi noonu la ko doxalee. te loi soppi dara. Mm-hmm. lu war a leer lu wërta leer ñu bàyyi mu sedd. mais nag euh, mënuñoo leeral lépp parce que tubaab dinañ toute vérité n'est pas bonne à dire. ah tubaab waaye olof moom waxul loolu. Ah? du lépp la ñuy wax du lépp la ñuy wax. tubaab laa ne waxul loolu. waaw ah? tubaab bi moom Adam loolu la. Adam mooy bu dëgg jotee bul wax dëgg. mais suñ maam yi moom seen aada du loolu. cinq minutes moo ci des euh, Dias yi buggoon naa xam citoyen lambda bi. Mhm. yan archive la am accès ak naka la koy amee ndax day ñëw rek wax lii laa soxla ñu jox ko ko wala am na këyit yu muy présenté balaa mu ciy jot yan archive la am accès benn citoyen sénégalais lambda. Ah, waaw archive moom bëri na ay ay catégorie aussi am na ay archive iconographique archive audiovisuel archive audio am na ay documents am na ay papyrus am na ay parchemin donc mhm. dafa bëri ay. ay ay xeetu archive mhm. mu ngi dépendre moom ci ban archive la soxla mhm. archive bi lan lay traité mhm. ak archive aussi fu mu nekk yan archive ngeen di joxe d'habitude loolu ñu joxe tey parce que boo ne boo dee citoyen am tey di di def ay recherche peut-être ci ay ay ay correspondance entre les gouverneurs des pays et le gouverneur général de l'AOF. wala ay histoire Sénégal ay histoire Sénégal yooyu yooyu souvent nañu ko boo tapé Google mais nag loolu nag non non yow mun nga tapé Google am mais mais nga am document boo bi moo ko signé daté ko signé ko donc bokkut ak bi ngay trouvé par contre aussi. bu fekkee ne euh, soxla nga yeneen archive yoo xam ne entre suñu marabu yi la peut-être ak tubaab hmm. am na yoo xam ne mën nga ci am accès mais am na ko fekk Google yooyu mënoo ko fekk Google hmm. Euh, citoyen bi am na droit euh, consulter n'importe quelle archive mais ça dépend aussi ci archive ci lu muy traité euh, sa durée de communicabilité ak fu nekk am na archive yoo xamante ne mën nga dem di koy doo ko fekk archive nationale parce que mhm. existé wu fa malgré ne yow nga ci am xam chercheur chercheur bi aussi bëgg a def ay recherche mun naa dem archive nationale ñu jox ko li nga xam ne ci loolu la bëgg a def recherche mu def ci ay recherche delloo document bi mhm. Euh, dafa bokkoon ci ancien combattant yi ndax boo ko la la ci lan lañ ko doon rémunéré ndax mun naa dem consulter. Mhm. jël euh, xool jël ci lu muy jël. delloo waat jarul ngay joxe papier bu ñu lay jox yooyu. non dinañ la jox benn papier nga. yow laa jarul ngay présenter dara pour wane ne. Euh, non si di nga présent di nga présenter parce que am na ay yoo xam ne étranger amu ci. accès pièce d'identité pièce d'identité. parce que gab benn beneen nationalité Sénégal amul yenn accès ci archives de même que Sénégal bi amul yenn benn accès ci yeneen archives yi. donc dafa lu ko lu lu ko la mais nag du document boo soxla am ko mais jàpp nañ ne boo demee yi nga soxla di nga fa fekk ça dépend ci li muy traité affaire bi muy hmm. traité diire bi ko fa tënk ak euh, sa disponibilité d'accord ban message ngay lancé gouvernement pour mu jàppale leen ngeen mën a am liggéey waaw comme Modou Fall ni mu ko waxee ak euh, ak yow donc comme inauguré na DT santé bi jàpp nañu am nañ fa place bu bu mag a mag a mag mooy mu mu nañu mais également jox ay directive ay ministre am gouvernement dans chaque ministère ñoo am fa ay archivistes euh, de même que des documentalistes pourquoi pas euh, des bibliothécaires mm-hmm. dans chaque gouvernance de même que les sous-préfectures et les préfectures donc mm-hmm. loolu message bu ñu koy lancé la mu bàyyi ñu xel mm-hmm. activistes yi bëriwuñu euh, li liggéey bi ñuy liggéey am na solo am solo boo xam ne mënut a ñàkk ci dundu doomu aadama donc aussi warta mun a ñàkk ci doxalinu état plus particulièrement dans le dans ce fonctionnement d'accord tàggatool waa xanaa di bu baax a baax di leen que permettre Euh, ñu soulever ay questions yu bëri yoo xam ne jiital nañu yëtt nañu communauté universitaire plus particulièrement waa EBAD muy problème insertion professionnelle ak violence yi ñu noté ces derniers temps au campus euh, di di ñaan kilifa yi nag nga xam ne ñoo sekk université ñu ñu jiital waxtaan ak problème bi nu mu munti mel nañuy waxtaan di avertir mais ñu bal di jël ay ay sanctions yu lourd di koy teg ci ay camarades mm-hmm. euh, métti na métti waaye boo xam ne xamul fu ñu koy wax yijee mm-hmm. mais ñu rangé wu derrière mais nag du étudiant yek rek def genre yooyu parce que gis nañ fi récemment assemblée nationale ay député di fay xeex te ñooñu ñuy représenté mhm. gis nañ fi ay nervi di dóor ay nit pourquoi pas état bi réagirul foofu te ñun aussi décision bi dañoo jàpp ne aussi am na am na lu ci lalu parce que président dafa menacé ba mu nekkee en tournée à Matam mhm. ne li xew université day jeex teguñ ci ay quelques fan ñu convoqué le conseil de discipline sanction yoo xam ne jéggi na dayo donc dañ leen di ñaan ñuy jiital waxtaan. Hmm. di jiital waxtaan fee aussi ñoom am nañ ci par de responsabilité ab am nañ ci part de hmm. ñu jéem a xool nu ñu réglé comité euh, problème mu université yi. pour que ñu mun a nekk ci dal continuer ci excellence bi ñu doon doxee. merci Mamadou Diassi yóbbu tàggatoo. non man li may tàggatoo du bari tey xanaa gërëm leen ñoom rek di wax ne na leen état bi jàppale ndax euh, néew nañ seen kuréel bi néew nañ lool muy waa IBAD euh, ba pare dañoo yaru li gën a raar étudiante wala étudiant bu yaru loolu dafa dafa jafe gis lool ci àdduna ñu la digaloon gàllaaj buñ la digaloon sarax nga di leen wër doo ko joxe xanaa nga daje comme ñu mel ni ñoom mm. santati leen gërëm di wax euh, suñu mbokki déglukat yëpp na mercredi bii di ñëw Fatoumata Ndiaye borom Fouta Tampi mooy ñëw fii ah mm-hmm. voilà di wax jaajëf aadama jaajëf Mor non c'est Fouta moo lay wax ne moo tàmpi waxagul Sénégal bu ñëwee dana leer. di la jaajëfal yow it di sant sëñ Laat Mbacké fële ci Touba. merci beaucoup Modou Fall Yobal merci Mamadou Diassi euh, représentant des étudiants de l'EBAT ñu ngi leen sant di la gërëm sa teewaay di gërëm Adama ci cabine technique bi moo Fall directeur page Facebook bi. Euh, ci kanam tuuti Babacar Ndiaye ñëw dikk ak yéen ci 16h bi ñu ngi leen jox dig daje mercredi bi di ñëw même heure même fréquence euh, beneen invité ak beneen